ci wàllu tàggat Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes Serigne Mansour Sy Djamil xalifa Seydi Djamil nekk ci fas Seydi Alioune Boye nekk ci ngu Ngumba Ngeewal ak njabootu Serigne mbay Boye Serigne Ibrahima Ndiaye di rakk ci ki faatu nekk ci Ndangur Ndiaye Serigne Mansour Ndiaye di euh, di bàyyi ci faatu nekk ci Ndangur Ndiaye Serigne Moura Ndiaye nekk ci Ndiaye Serigne Modou Ousseynou Ndiaye ak njabootu maam. mbay seen bugg yëpp nekk ci Ndangur Ndiaye Serigne Modou Ndiaye ak njabootu Baye Sakho Ndiaye njabootu Serigne Ndiaga nekk ci Ndakaaru euh, ak mboolem askanu Serigne Ndiaga bu kër Seyti Jamil soxna Ngaan Ndiaye di rakk ci ki faatu nekk ci kër Hadji Dame euh, ak mboolem askan yëpp soxna Ndeye Ndiaye di rakk ci ki faatu Serigne Mbaye Ndiaye di rakk ci ki di faatu Serigne Modou Ndiaye doom ci ki faatu soxna Ami Ndiaye nekk ci Tiwaawoon sëriñ mbay bu njaay nekk ci ndakaaru ak mboolem njabootu Seynabou Ndiaye so soxna Fat Sall nekk ci Louga ak njabootu soxna Roqe Njaate asfal ak mboolem njabootu Bate Góora soxna Wali njaay ak njabootu dañ Ibra Njaate Ndiaye nekk ci Ndangur ak mboolem askara Ndangur njaay sëriñ Modou Khoudia Mbodj nekk ci Bijëm sëriñ Boub nekk ci Bijëm daam Diop nekk ci Kër Madoun soxna Njaat nekk ci Kër Madoun soxna Faali Ndiaye ak njabootu askanu njabootu soxna Faali Njaay nekk ci ndakaaru soxna Farimata Njaay nekk ci ndakaaru ak mboolem askan wi nga xamee nag ñoo bokk ci ndëngur kalasaan mbajaar njéey ak askan wi yépp soxna Ami Njaay di soxna ci ki faatu ak soxna Ayda Njaay soxna ci ki faatu soxna jeeg jaañ nekk ci looyeen di soxna ci ki faatu ñoo am naqar ak di leen tàggee alxaaji Bada Ousseynou Njaay bàyyi ko fi alxames juróom-ñaari fan ci mois de mars ca Ndëngur Njaay ñu fas yéene rob tey di juróom-ñetti fan ci mois de mars 2024 ca Ndëngur Njaay bi lépp nag tey la yem di ko jaal nag seen mbokk seen xarit mbay Ndiaye Madiane nekk fii ci RTS bu Louga ak mboolem ñi nga xamee ñoo nekk fii ci Louga ñoo am naqar ak tiis di leen tàggee ni ma leen ko waxee rek alxaaji Bada Ousseynou Ndiaye alxaaji ba Ousseynou Ndiaye yàlla na yàlla xare ko aljana bi jaay na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ginnaaw loolu nag ñu ngi ànd ak waaye te ci turu Njaga Jóob di ko jàll ndangur gépp di kilifa rajo bi sama ne